asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kaddu yi de ñu ngi yëkkatiku di ab yóbbante akub yónneen bu bàyyi koo ci kilifa gi nga xam ni moom la sëriñ bi teg jumaa ji ci loxoom muy Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Cheikh Saleh muy baale ci ab yóbbante muy geneen kàddu bu bàyyi ko ci mbooloo ñi de ñuy wooyee siti Sëriñ Saliou Mbacké kàddu yi nag li ciy jiitu mooy ab nuyoo ñoo ngi ci jiital ñaan akub fàttaliku akub cant bu ñuy jagleel seen maam joo jile di Serigne Saliou Mbacké ñu di ko ñaanal di sàkku suñu borom bi ñoo tas ci barkeem bu ñoo dolli ginnaaw ñaan googu ak kàddu yu fàttaliku yooyu ci moom bu baax moo bu leen nga xam ni barab bii ñoo ko taxawal ci ndigalam te jublu gi lu lenn lu dul bëggu yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa mi borom dëkk bi leen ginnaaw kàddu yooyu ñu ciy taftal ay kàddu yu nuyoo ak ñaan jëm ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ni moo fi Sëriñ Tuubaa ci képp ku di murit ñu di ko ñaanal ak yàgg ak wér akul mottali ay mébét ak i naan yomb naa doon sëriñ bi ci dëkk bi ñu yëg yi teg yi itam kàddu yu nuyoo ak cant ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou mii fi nekkal sëriñ Saliou Mbacke waaye ci toftal mbooleem ñu bokkal sëriñ Saliou te bu ñu leen limee bu ñu tuddee Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim mu yóbbaale ñi ci des ñëpp waaye itam seen jigéen ñi nga xam ni ki ñu ciy jiital te di ko ñaanal ak yàgg bi wér muy Sayida Soxna Wala Bakke ginnaaw kàddu yooyu bàyyi ko ci sëti Sëriñ Saliou yooyu ñoo ngi dellu di yëkkati ay kàddu yoo xam ne cant rekk la jëm ci mbooleem kilifa boo xam ne teew na fii te loolu weesuwul di ay nijaay ak i baay yoo xam ni buñ ci tuddee Cheikh Mbàkke mu yóbbaale ñépp kon kàddu yi nga xam ni ñii di wuyoo ci sëti Sëriñ Saliou yóbbante woon nañ ma ko ngir ak ñàkk a a wax ci xëy na mettiwaayu koor gi moo ko waral ci ñoom moo wuutu leen ci ngir waxal leen ko waaye ci kilifteefu Sëriñ Xaadim Mbàkke moom Sëriñ Saliou muy kàddu yoo xam ne moo ko waroon yëkkati man nag may seen jaam bi nga xam ni bu yëf yi mettee ba wax xaw a jafe buñ ma ko joxee mën naa ko wax ndax daanaka li gi ci kii man yëngu ci ndax kàddu yi kàddu yi cant rek la ma ci jugee tëjee ko kàddu yi suñu kon yaakaar naa ni kàddu yi cant yi weesuwul képp koo xam ne teew na ci bis bii ànd koog ñoom muy kuy yëngu ci wàllu ñi taxawal nos yi waaye tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ñoo def waxtaan yu am njëriñ yu sell yi te bu ma ci tuddee docteur Serigne Abdou Lahad mi nga xam ni xam-xam ba la muy jot jot jot dolli na ko taar ak tali bi kon ñoo ngi koy mu yàgg ko taxawee barkeb Serigne bi kon gaañoo moom comme xamaguma seen njëriñ fu mu toll seen kàddu foofu laa ci mane mu ñëw ci kàddu yi si Mourtala di sama nijaay ji nga xam ni sama nijaay ji nga xam ni daf ma yónni yónni kàddu yooyu nag mooy yi ma gën a yitteel Cheikh Mouhamadou Mourtada nee na mi ngi yëkkati am nuyoo akub di ko jëmee ci Serigne Cheikh Saliou Mbacké mi nga xam ne moo ko teg ko ci barab bii ngir mu taxawal ko fi waaye teewal fi mboolem njabootu Serigne Saliou gépp moom Cheikh Mamadou Mourtala ndax nii mu fi teewee bi mu ñëwee rek la ko teggi ñëpp waaye loolu ko ñëpp Cheikh Mamadou Mourtala nee na moo ngi cant di ko jagleel mu bokkal Serigne Saliou nee na tàmbalee liggéey bi ba léegi. fu mu ci toll dañu koy ànd moom waxtu wu ci ne mu ngi ñëw waxtu wu ci ngi teew te lépp luñ fi def mu ànd ak moom mi ngi koy beral ak cant ci taxawaay boobu. nee na itam ñii mu bokkal Serigne Touba te ni ma ko waxee woon léegi dee fii mooy ñu bokkal Serigne Touba ci ñi ñuy wooye ay max ak mu mën a demee ngi leen di jagleel kàddu cant ak nuyoo gu mag goo xam ni. dañoo bàyyi si lépp ñëw wuyu ji ci woote bii nga xam ni woote bi yàlla rek la te sëriñ Amsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Basiru Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir ànd koog moom ko ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa bi fi teew sëriñ bi nee na ñu leen di sant bu baax Cheikh Mouhamadou Moutala nee na itam mi ngi sant mbooleem kuréel gi nga xam ni ñoo ñëw ànd ak moom liggéey bi di ko taxaw moo xam ci ñu bokk ci ñiy doxal nosub jumaa ji wala ñu bokk ci ñëpp ñu koy jàppale ci berndeel gan yi ak fexe ba ni jumaa ji war a war ma ji mu war a àndal lépp mu ànd ak moom ñu ko yàlla waxee ci alxuraan ni na ngeen di jàpp seen taar di ko waajal ci saa yu ngeen di tàbbi ci jumaa yi ni ñuy fexe ba sàpp yi di jub lépp di tege ci yoon nee na ñoom mu leen di dalal ak cant nee na itam sëti sëriñ Saliou yi ma wax léegi ñuy samay sang ñu ngi leen di beral ak cant boo xam ni ci taxawaay boo xam ni taxaw nañ ko ci bis bii mu doon loo xam ni ci ajjuma yi fi jaaroon te bokk ci biir weeru koor yi mel na ni jagleloon na ko aw nit mu dox ko ci ajjuma ji nga xam ne moo mujj <clears throat> ci weeru kooru ren wii dañuy ñaan ñun ñëpp yàlla bu mu doon suñu ajjuma ju mujj ci weer yi ci weeru koor yi dëm yi ñu dëg mën ñu ngi leen di sant ci taxawaay bu rafet bi ñu ci taxaw ci wuyu si ak wooteem ci ni mu gën a sell di ñaan itam li nga xam ne Sëriñ Tuubaa digle na ko ci bépp ku ñuy wuyoo ci ak njabootam su ma nee njaboot nag taaliba yaa ngi ci biir képp koo xam ni yaa ngi wuyoo sàtt yay tax nga nekk taaliba bu matu taaliba ci jëfe ndigal ak bàyyi tere mu ngi ñaan loolee yàlla tàbbi ñu suñ kaw ñoom it nee nañu ñoo ngi nuyu tey beral ak ak cant waa xuratul ayin di waa kër Cheikh Sohaib Mbacke nga xam ni teew nañ ci ba ci fi kàddu dafa jël nation ñu ngi leen di nuyu di leen jagleel ak cant boo xam ni mënuñ si ko tudd kon jàpp naa ni ci tënku tënku kàddu yi ginnaaw bu fekkee jàngu lotti bii bu doyee bi fàtte na ginnaaw ak fàtte nga xam ne lu fàtte ci man la waaye kàddu yi moom fa mu bàyyi koo mate na ko sëkk loolu moo doon kàddu yi nga xam dinaa ko jotali da ci ak ñaan ñuy delluwaat di ñaanal di ñaan suñu Saliou Mbacké suñ borom gën ko dolli ay tawféex waaye gën ñoo dolli gën ñoo dimbali ci barkeem